mbokk yi salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen jaajëfal bu baax ci seen teewaay ci conférence de presse bi nga xamante ni mouvement de forces vives du Sénégal F24 moom moo ko woote ci bés bu am solo bi ci suñu taarixu réew di nuyu aussi sénégalais yi ñuy seetaan yépp Euh, à travers sen ond euh, télé digital surtout yo am taxaway am démocratie fi mu les télé digital waaw ndax yu actuellement malheureusement les médias classiques yi nga ñu ngi le relais pour que citoyens yi les informations justes pour preuve ce qui s'est passé à bu dul woon ñenn ñi ci télé digitale yi ah, du ñu du ñu ci jot même si média classique yi aussi am nañu seen seen seen solo ci réew mi ci approfondissement wu démocratie te ñu leen ciy gën a ñaax di nuyu vraiment sénégalais yi ñuy seetaan yépp di wax ni di rappeler juste que mouvement des forces vives du Sénégal bi nga xamante ni moom mooy F24 bi ñu koy lancé keroog ca. Goodreads nous ngi 112 organisations et personnalités indépendantes membres Nous avons ngi si je ne m'abuse Si nous sénégalais nous avons ngi le Sénégal ak ci diaspora à travers ces organisations, muy organisations politiques, organisations de la société civile juste de simples associations citoyennes mais aussi des personnalités indépendantes qui ont signé di charte d'engagement pour beaucoup de combats citoyens bi peuple sénégalais à travers les forces vives du Sénégal Je wax aussi ni et di rappeler ni ponk yi nga xamanteni ni ci biir force du Sénégal Je nga aussi vraiment revenir un peu avant may continuer ci euh, historicité ou cette plateforme là Nous ñu bari ci ñun ñu ngi M23 doyen mboj mi tok ni mu ngi M23 a ci rôle yu am solo ak ñeneen ñu nekk ci et même ñenn journalistes nga ils ont été témoins M23 ça s'est fait au fil du temps au fil ñuy l'avancée. mu am ay force am ay faiblesse mais F24 bu ngeen ko xoolee organisation bi nga xamanteni ni la euh, dañu ko sos rek euh, mu am manko bu am solo à travers les acteurs politiques société civile ak ñeneen et tey jii nii gis ngeen posé guñu sax première activité majeure mais gis ngeen dayo bi mu am ak attente bi sénégalais yi am ci moom attente yi nag bokk na ci mbirum troisième candidature Macky Sall bi nga xamante c'est non négociable te mënul nekk te du nekk ci réew mi parce que suñu charte ndeyu réew mayu ko mais aussi euh, la morale et l'éthique politique en tant que président de la république comme doyen Mbodj waxé ci note introductive benen ponk bi tous ces centaines de sénégalais yi nga xamante ñu ngi ci biir kasso yi ñu ngi leen fa parce que dañu jibal sen kaddu ci réew mi ni ci justice ni mu doxé ak yenen ak yenen ñu qui leen ne tous ces sénégalais yi nga

Permettront na ko mu écarter ay candidats et tey dis, gis ngeen avec Ousmane Sonko aussi artifice yoyu la utilisé pour l'écarter du jeu démocratique pour euh, mu baña dem élection que artifice yoyu ñu dindi ko ci limu modifier ces dispositions là pour que ñu dem ci ay élections yi nga xamanteni Macky Sall du galgal ben candidat ñi wara yépp ñu et pour terminer aussi wax nañ ci mbirum parrainage ñëpp gis nañu dans l'esprit je pense que la plupart des sénégalais étaient d'accord mais ci niñ ko tegee baaxul parce qu'il y a du nébuleux acteurs yi tooguñ ñu waxtaan ci les dispositions de mise en œuvre du parrainage que ñu xoolaat ko et enfin dans le prolongement de tout ça mooy qu'on aille vers des élections yi nga xamante ni day doon des élections libres et transparentes bu Macky Sall dul bokk mais que du galgal kenn loolu moo tax a jóg F24 ñu ndaje mu am le premier acte d'un plan d'action bi nga xamante ni ficelé nañ ko ba pare dinañ ci ñëw ci ay jamono waaye nañu xam ni tey mooy bés bu njëkk bi bu ci suñu démocratie ci histoire parce que c'est le début de quelque chose et le début de quelque chose de grand citoyens yépp à travers le F24 dañu woote tey vendredi 12 mai 2023 à 15 heures ca place de la nation pour un rassemblement bu mag historique pour one à l'Afrique et au monde entier que le peuple sénégalais dans son écrasante majorité n'angoule, la Macky Sall ci y mu nek di def ci Sénégal toll na fi nga xamante ni léegi dañ am na ay zone yi nga xam dafa mel ni bande de Gaza gis ngeen bu ngeen demee Israël ni ñuy jëlee armee Israël di occuper yenn espace yi di noot population yi fa nekk di biir dugg ci biir kër yi di boom nit ñi di def naka su noonu boo demee fu mel ni Ngor loolu fa ne réew mi léegi fépp tuute mi ñu foog ni loolu moom mooy tax sénégalais yi ñu ragal ba duñu taxaw taxawaay bi war face à l'histoire pour que suñu démocratie ñu aar ko loolu bu dee loolu lañ foog dañuy nax seen bopp ndax tey place de la nation dina am lu rëy li à travers une vaste mobilisation très forte des Sénégalais mais une mobilisation pacifique parce que c'est ça notre force une vaste mobilisation bugg nañu tey place de la nation ku fa ñëwul 14 h ba 15 h ah waaw di nga am ay difficultés pour accéder parce que sénégalais ils sont déterminés à ce que nous ñu ñëw fa le monde entier Macky Sall troisième candidature am mënul nekk te du nangu Macky Sall di galgal ay candidats te ay élections yu libre transparente nous ñu bëgg bi nga xamante ni ki ci war que sénégalais ils sont déterminés à se battre pour ça donc di jox dox et puis di wax ni les seules couleurs qui vaudront tey place de la nation il les couleurs de notre nation qui nous unissent tous toutes tous toutes et tous il le vert le jaune et le rouge à travers les appels de tous les leaders du F24 le vert le jaune et le rouge le t-shirt de Yann Amar, le t-shirt de LD Debout de République des valeurs de Frappe nitu euh, de PASTEF, le fanion de, je ne sais pas, Agir, à toute autre organisation des au profit de nos couleurs nationales, moi le vert, le jaune et le rouge. taille place de la nation ci ce que nous sénégalais am rassemblement bu am solo ñu place de l'indépendance discipline qui pacifique nous comme premier acte que boy dem fexe ba mbuus yi fa newoon gobelet yi fa newoon salte yi ñu fa fekk sax yi nga xam ñun indi wuñ ko fa ñu fexe ba bu ñuy ñibbi ñu jëlee ko fa ba mu set wecc mu doon un message fort qu'on lance au régime de Macky Sall et au monde entier pour ñu xamni Sénégal fu mu newoon jógewu fa li tax ñuy naan vitrine démocratie la ak la ak wu peuple sénégalais jógewu fi lolu la wara woné tay place de la nation pour que Macky Sall ak ñi mu àndal ñu xam ni pendant qu'il est encore temps que dañu wara taxaw que ces points du F24 ci li mu gën a gaaw ñu dox ci ñu fexé ba lijjanti au plus vite bu soobé yalla jaa ngeen jëf.